ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin seydina wa mawlana muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaan wa tamkin rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barkat seexil xadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki jàkkaarloo ñu ca ñu seetaan ca dañu bàyyi xel ci rajo Assalaamy FM 99 point 0 waaye itam dañu seetaan ci biir réew mi bitim réew ci seen télévision Assalaamy TV ñoo ngi am mbégte kontaante di ñaanal xalif général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool Mbacké ci ànd ak wér noonu itam lañ koy ñaanale ki nga xam ni moom la ñuy xoolee tey jëmi a Cheikh Ibrahim borom Daaru Moxti di ko ñaanal muy sëriñ ba Anta Ñang waaye itam di ndokkeel di ñaanal bu baax itam El maam Maam Thierno Mbacke mi nga xam ne tey moom la ñuy xoolee yaa xafaar di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke ak mbooleem njaboot gépp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaye itam nuyoo boobook ak siyaar bi ñu yëkkati ko teg ko ci loxol jëmm ji nga xam ni moom la ñu feggool nii di suñu sëriñ di suñu xarit di sëriñ Cheikh Awa Balla ñu gën ko xam ci Baye Cheikh Awa Balla moom Cheikh Mouhamadul Mahfous sëriñ bi jottali ñu ko Cheikh Mouhamadul Mahfous moom sëriñ Cheikh Awa Balla moom maam Thierno Birahim waaye itam Cheikh Mouhamadul Mahfous euh, moom soxna Maymuna bintu Xaadim Rasoul kon nag su ngeen ko déggee ñu nekk ci wàccaayu bës bu am solo bi nga xamante ni mooy laylatul xadar xel yëpp dana dem ci soxna Maymuna Mbàkke bintu Cheikhul Xadim waaye itam suñu gisee ci kër gi nga xam ne da ko fàgg woon ba tuddee ko kërug laylatul xadar ngeen xam ni kon nag ñi ngi ci wàccaay bis boobu nga xam ni mooy laylatul xadar war a nekk ci alxames bi ñu dëgmal ñeenti fan ci weeru avril incha allahu rabbi looloo tax nag ñu fas yéene ànd ak yéen palaato bu euh, am solo bu nga xam ni dañ koy féq ak ki nga xam ni moo di bàyyi Cheikh Awa Balla moom Cheikh Mouhamadul Mahfous yaakaar naa ni euh, ku koom la ci xamle ndax taxawaayam ci digganteem ak sëriñ bi taxawaayam itam ci digganteem ak mbokk gi taxawaayam ci digganteem ak njaboot gi lépp lu ràññeeku la waaye itam ñu ànd ak euh, sëriñ Mamoun euh, ci wàllu euh, caméra yi feggoog sëñ Sànna Biyaay yi ci réalisation bi ñu fas yéene nag seq jotaay boo bule kon yaakaar naa li ñuy def mooy njëkkanteeg waxtu bi rek jox sëriñ amet Fall kàddu gi su ko defee moo ñuy ubbil jotaay bi ndax jotaay bi day jotaay boo xamante ni jotaay bi mbégte la waaye tam jotaay bu bànneex la waaye itam jotaay bu tawféex la ndax ki ñu ciy muy soxna Maymuna waaye itam liñ ciy waxtaane muy laylatul xadar yaakaar naa ni marqué na jamonoom ñuy ñaanal baax a baax soxna Astu Mbàkke euh, moom euh, sëñ Cheikh Ahmadou Mbàkke gaynde Fatma moom tamit yàlla kattanal ko ma nga ci kër ga soxna may daan nekk fa soxna baali daan nekk waaye itam ñaanal soxna baali yàlla yokk ay leeram ca taas ñu ci barkeem ak njaboot gépp waaye itam noonu itam ñu ngi sëñ Cheikh Abdou Mbàkke euh, gaynde Fatma muy sëñ Cheikh Abdou Lahat moom itam yàlla dooli ko tawféex yàlla kàttanal ko ndax taxawaay bi nga xam am na ko ci laylatul xadar feggoog ki nga xamante ni moo di bàyyi Cheikh Awa la ñu nekk euh, keppaaru seen kilifa di Cheikh Mouhamadul Mahfous ñuy liggéey liggéey nga xamante ni tey laylatul xadar fu ko soxna may bàyyi woon bi soxna si ñëwee di soxna Bali da koo yokk waaye itam fi ko soxna Bali bàyyee tànd kàr yeeg boromam Cheikh Mouhamadul Mahfous bi mu ñëwee ànd ak soxna astu ay jarbaatam dañ ko yëkkati itam ci taxawaay boo xamante ni ñëpp xam na ni comme lu mu ci doon rek. yokku na su deeg yaata la yaatu na su deeg tasaaroo itam mi ngi gën a tasaaroo kon sëñ Mouhamed ñi jox la kàddu gi nga nuyoo waaye itam euh, ubbil ñu jotaay bi su ko defee ñëw ci tomb yi nga xam noonu lañu nar a waxtaani euh, sëñ Mouhamed bisimilah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami rashida wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki euh, télévision assalaamiya ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru koor di chahru ramadan al muazzam mi nga xam ne moo gën ci fukki weer yi ak ñaar di weer wi nga xam ni sunu borom da koo jagleel al ummal islamiya euh, di leen nuyoo ci barab bu tedd bii nga xam ni mooy euh, résidence laylatul qadri bii nga xam ni suñu maam ju baax ja euh, soxna may munatu bintul xadim moom moo ko taxa taxawaloon te dara taxul woon mu taxawal ko lu dul li ahyaa i laylatul qadri ngir dundal fi guddig laylatul kadri gi nga xam ne ci la doon liggéeyal waajur ba Serigne Touba liggéey buñ nangu boo xam ne ñëpp teg nañ ci bët kon ñu ngi leen di ziare ci weer di ziar kilifa yëpp ci euh, turu sëñ Mouhamadul Muntaqa mu man a yóbbaale ñëpp di leen ñaan yàgg fi te wér yàgg yite diina ji waaye ñuy nuyu suñu waajur bu baax wii ci biir muy cheikh Mouhamadul Mahfouz ñuy ñaan yàlla an yaxfazahu wa yaraahu min kulli makruhin yàlla sàmm ko te aar ko ci lépp loo xam ni lu ñu lu ñu lu ñuy bañ la yàlla ko ci yàlla euh, musal te aar ko mook mbooleem njabootam gépp waaye di ndokkeel bu baax cheikh Abdou Bali mi nga xam ne mooy ab jarbaatam tey jëwriñam ci liggéey bi waaye di ndokkeel soxna Assu Mbàkke mi nga xam ni mooy ab jarbaatam moom it tey jëwriñu liggéey bi ñu féete fële ci kër soxna may ga ca jumaa ja waaye ñuy nuyu bu baax tey ziar sëriñ Baye Cheikh Mbàkke sëriñ Baye Cheikh Awa Balla Mbàkke mi nga xam ni mooy taaw Cheikh Mouhamadul Mahfouz euh, di nit ku baax ku bari xam-xam macha allah li mu waroon a jàng lépp mën nañu jàngoon na ko fii ci réew mi waaye ginnaaw bi bi mu jógee ci Azhar bi nga xam ne mooy école maam Cheikh Mouhamadou euh, dem fële ca Maroc fa am njàngam ba macha allah bi mu ñibbisi réew mi indaale ay diplôme yu am solo yoo xam ni Euh, lépp lu doomi soxna di xam xam na ko waaye boole ko ab yar ak ay teggin mm-hmm. ndax xam-xam lu mu yaatu yaatu te àndul ak yar ak teggin daanaka du am njëriñ ndax iblis moo ëppoon ñëpp xam-xam waaye ku ne xam ne ni ñàkku yar moo ko yàqal mm-hmm. waaye Serigne Baye Cheikh ku ko xam euh, xam ko ci yar waaye xam ko ci ay teggin waaye xam ko ci ak dal mm-hmm. kon euh, ñu ngi ziare ñëpp di leen wax ni ñu ngi fii ci kër soxna may muunatu fas yéene ànd ak suñu waajur bi Cheikh Mouhamadou Mahfouz mi nga xam ni ku ne xam na taxawaayam ak yitteem ci guddi gi nga xam mooy guddi laytu qadri nga xam ni ku ne xam na ni pas-pasam ak pasteefam ginnaaw soxna si mhm. fépp fu soxna si bàyyi woon rek sëriñ Mouhamadul Mahfouz am na yéene ak pasteefu yóbbu laytu xaadir fa raw foofa euh, ba tax na bu euh, dugg see léegi rek du xaar sax ba bis ba waaye weer wépp daanaka da koy dundal ci ay euh, bernde di invité mbokkam yi waaye di def ay jataay xam-xam ndax ko xam sëñ Mouhamadou Mahfouz xam ni ku yitte woo xam-xam la waaye ku bëgg xam-xam la ak borom xam-xam yi mu toll mi ngi invité borom xam-xam yi di invité mbokkam ay kilifa yoo xam ne leen di tudde ay bis ñuy def ay waxtaan ay muhaadaraat di ko defee fii ci kër gi ak kër ga ci jumaa ja mm-hmm. borom xam-xam yi gën a mag ci yoon wi ak ci réew mi ñu leen ciy invité ñuy traité ay thèmes yu am solo yoo xam ne jullit yëpp danañ ci mën a jariñu kon tey euh, Salamia TV ñoo ñëwoon ci kër gi ngir ñu ànd ak sëriñ Baye Cheikh Awa Balla Mbacké mi xam ne mooy taaw sëriñ bi di jëwriñam ci liggéey bi mu defal ñu ay leeral ak ay waxtaan yu am solo ci lii nga xam ne mooy layatul xadri ak euh, nu mu sosoo waaye nuñ koy dundalee waaye ku déglu sëñ Baye Cheikh daal yaakaar naan di nga déglu lu am solo loo xam ne ci laylatul xadri ak li ko sos ak ni ko soxna si taxawale ba fi mu ba fi mu fi mu mu yëg si ku déglu sëñ Baye Cheikh yaakaar naan di nga ci am ab yóbbal boo xam ni incha allahu taala dina la doy sëkk kon ñu jox sëriñ Baye Cheikh di ko déglu di ko taatan di ko ñaanal suñu borom tàllal làmmiñam ubbil ko xelam ba lépp lu mu yéene mu defee ko nu kowe njottam ci barke Serigne Touba ci barke Soxna May Munatu bisimilah Serigne Baye Cheikh. jërëjëf euh, sëñ Mouhamed Fall kàddu yi am na solo leer na ubbi gi itam am na solo li nga ñu xamal ci sëriñ bi itam bokk na ci li ko ñëpp nawe mu di ab yar ak i teggin ak ak taalube waaye itam nooy lool nu ngoo dégg ndugalal kilifaam yaakaar naa ni keroog maa ngi am ñu may waxal man leen. Euh, ci màggal ak sëñ Fallou Galass si léegi mu leen bàyyi seex li ma neex ci moom day euh, complice la digganteem ak sëñ Maodo Mahfouz foo gisee sëñ Maodo Mahfouz soo xoolee gis bàyyi seex na ca wet ga yaakaar naa ca loolu jikko ju rafet moo koy waral ci diggante jur ak doom euh, ñimeel sa bopp say njaboot ban ñime la ñimee ànd ak yow waaye itam njaboot gi jub-jub gu toll ni ñimee jaxasoog sa way jur doo tàqalikoog moom yaakaar naa loolu itam liggéey bu am solo la kon Baye Cheikh ñu lay nuyu baax di la fi ñu bëgg a njëkk a rek Euh, mooy nga laalal ñi suñ doon bëgg nga euh, netaalal ñi soxna may mun a mbàkke bintu xaadim rasul mooy kan ñu tàmbalee foofu lan nga ñu ci wax Baye Cheikh. ah bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabil wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama tasliman awnaka yaa muin bika nastain wala xawla wala quwata illa billahi al ali al azim dañuy tàmbalee kàddu gi ci nuyoo ak kub ziyaar jëmale ko ci képp koo xamee ne yaa ngi ñuy topp ci Assalaamy TV ak ci rajo bi ah, di eh, jiital ci ziyaar bi ak ci ndokkeel bi Eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te wéral ko ba lim yéene liggéeyal maamam ju tedd ja suñ borom àggale ko te ànd ko ak moom di ziyaar itam eh, képp koo xamee ne yaa ngi eh, nekk kilifa ci toolub lislaam bi di leen ziyaar bu baax ci weeru tedd wi nga xamee ne mooy ngën gi weer di chahr ramadan nga xamee ne li eh, ko suñ eh, li ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxe njëlbeen gi eh, yërmande la digg bi ak njéggal la mu gi ak gorel la ci sawara kon lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul barke Serigne Touba xanaa di toog fii ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mahfouz mi nga xamee ne mi nga xamee ne moom la soxna si bàyyi woon laylatu xadar gi mhm. te e, mu àgg mu àggale ko fa mook ko soxna baale rahmatullahi aleyha foo xamee ne wax dëgg yàlla kawe na njort dañ leen di dañ koy ñaanal moom soxna baal suñ borom gën ko yokk leer gën koo yokk njéggal ak yërmande ak waajuru mu teddoo soxna may mënatu mbakki waaye di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mahfouz suñ borom sàmm ko di ziyaara taalibe yëpp nag di leen ndokkeel bu baax ci weeru tedd wi waaw sëñ Moussa ni nga ko waxe euh, soxna may mënatu Mbàkke moo nekkoon ki mujj ci doomi sëriñ Tuubaa yi moo ko ci mujj ndax mi ngi gane àdduna euh, mille neuf cent vingt cinq ci njaareem nga xamee ne daanaka ñaari at la fi fekkanteeg Cheikhul euh, te Euh, dañuy nettali na sëriñ Touba ci jëmmoom moo ko tuddal boppam. Mm-hmm. loolu nee na moog Cheikh Mouhamadou Lamine Baara rek ñoo am jagle googu. Mm-hmm. Serigne Touba tuddal leen boppam. Euh, itam bokk na ci euh, yittewoo gu ko Serigne Touba yittewoo mm-hmm. neen ba mu gënee àdduna dafa wax ñi defar ko benn néeg ci njaareem néeg boo xamee ne néegub néeg boo xamee ne du tàng néegub ñax lay doon ngir ngir ngir mu mën faa nekk nee na loolu la sëñ bi waxoon daa joxe woon ndigal ñi defar ko benn néeg mhm. ci njaareem eh, mu fay nekk mu fay yendu mhm. waaw kon loolu lépp ak yittewoo goo xamee ne Sëriñ Tuubaa yittewoo woon na ko ko mhm. ak ñeewente gum ko ñeewente woon ah, ni ko xamee nag eh, fekkente wu fekk Sëriñ Tuubaa lu lu yàgg eh, ba tax na ba tax na ba tax na Euh, li ko waroon ci moom lépp magam yu tedd yi ñoo ko ca def di mooy cheikh Mouhamadul Moustapha ak cheikh Mouhamadul Fadal euh, man noonu wax na cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko moo ko jàngal moo ko jàngal ndax euh, sëñ Alassane Jaxate mi ko jàngal alxuraan ci ndigalul cheikh Mouhamadul Moustapha la ko defee waaye itam cheikh Mouhamadul Fadal moo ko jàngal xam-xam waaw cheikh Mouhamadul moo ko jàngal xam-xam. Euh, cheikh Mouhamad Moustapha itam tarbiye ko. cheikh Mouhamad Moustapha tarbiye ko kon li nekkoon ci moom lépp waajur wu tedd wa di euh, maam xari sil ak magam yu tedd ya di cheikh Mouhamadul Moustapha ak cheikh Mouhamadul Fadel ñoo ko def ci moom ñoo ko jàngal xam-xam ñoo ko tarbiya euh, def ci moom jikko yi jikko yi nga xamee ne moo taxoon mu mën a faggu bis bu tedd bii ndax bis bi kat dañuy wax ne euh, ñëpp ko ñëpp ko bëgg mm-hmm. ñëpp ko yittewoo waaye jagle gi ko ci yàlla euh, defal mm-hmm. euh, defalu ko keneen ndax dafa lënkoo dafa lënkoo laylatul xadar mm-hmm. fu ñu tëddee laylatul xadar rek ñëpp seen xel dem ci dem ci soxna may muy koo xamee ne nag ni ma ko waxee rek fi ñuy jaarale doomi soxna yi rek lañ ko jaarale mooy te mooy jàngal ko Euh, euh, tarbiya ko mmh. tar tarbiya ko euh, ginnaaw bi ñu ko jàngale tarbiya ko dañ ko teg ci loxol Cheikh Serigne Cheikh Awa Balla mmh. radiyallahu taala anhu nga xamee ne Daarul Muxti la nekkoon di fa liggéeyal boroomam ci keppaaru si Cheikh Awa Balla mmh. waaw dañuy wax ne Euh, daaru marnaan sax la njëkk a nekk waaye sëñ Mouhamadul Moustapha moo sàkku ci sëñ euh, moo sàkku ci sëñ Cheikh Balla ñi toxal ko andi ko daarul mooti ngir mu gën koo jege mu gën koo jege nga xam ne euh, laylatul xadar bi foofu la ko tàmbalee defe ndax mi ngi ko njëkk a def mille neuf cent quarante neuf la ko njëkk a def ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Fadal ndax booba ci la def ay berne mm-hmm. dana wax ne ñaari ganaar la la rey ah, def ko ay berne eh, yët ko Cheikh Mahamadul Fadal ba Cheikh Mahamadul Fadal eh, wax ko ci wax jam ko gam ko ca wax mm-hmm. ne ko fépp foo bëgg mu àgg fa rek suñ borom dana ko fa àggale mm-hmm. yàlla dogal na def na ko juróom fukki at ndax 1949 ba 1999 ci la ko def muy bis bi nga xamee ne dafa daf ko tànnoon gi liggéeyal ci waajur wu tedd wa Cheikhul Khadim hmm. ndax eh, ni ko magam yu tedd yi defe woon ñoom ñëpp danoo jaayoon seenu njureel jënd ko ak taalibe ndax Serigne Touba dafa nekk koo xamee ne dafa donn yonent yi dafa doon yonent yi te buñ dellee ci alquran dañuy fekk ne suñ borom day wax ne inna awlan naasi bi ibrahima lallazina tabaahu wa hada nabi wallazina amanu nee na ñi gën a yey ci Seydina Ibrahim mooy yonent bi ak ñi ko gëm ak ñi ko gëm waaye du caagante ne ñi bokk moom darat wala du wala yahud yi walla nasaraan yi kon Serigne tubaa li ni li ñuy jariñoo ci moom mooy topp ko akuk taalibe ni mu ko ni mu ko waxee pas-pas ni mu ni ko leerale woon woo sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha ak sëñ ma Roqee Buso ak ma sàmba ne leen eh, li fi nekk day jaay eh, eh, li fi nekk day jaay doom mayewu ko jarbaat mayewu ko mbokk mayewu ko kon li soxna may nag loolu la xamoon moo taxoon mu mu mu saxoon ci di liggéeyal sëriñ Touba saxoon ci liggéeyal sëriñ Touba tànn laylatul xadar ngir di ko ci liggéeyal ndax kon xam na ne euh, sëriñ Tuubaa alxuraan moo nekkoon léppam alxuraan moo nekkoon léppam nee na lépp lu mu am ci alxuraan la ko amee kitaabu ko diini wa huwa xelli wa mu unisi hadaani bihil haadi wa nafsi bihi zakka nee na euh, yow yàlla sa téere bi mooy sama diine ji nga xamee ne moom lay topp mooy sama xarit waaye mooy sama wéttal Euh, te euh, sell gi ma sell ci barkeb alxuraan laa ko defee waaye jub gi ma jub itam ci barkeb alxuraan laa ko defee kon alxuraan moo nekkoon léppam looloo taxoon soxna Maymunatu Mbàkke euh, tànn alxuraan di ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax ku ne xam na ne weeru koor alxuraan ci la wàcc naa inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka naa kunna munzirin waaye itam ci guddig laylatul qadr ci la wàcc inna anzalnaahu fii laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayru min alfi shahr tanazzalul malaikatu wa ruuxu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matla'il fajr kon loolu rek doy na eh, martaba ci màggaayu guddi gi ak wàcc waayam ndax suñ boroom daf ko dafa wàcce ci moom aw saar ngir feeñal eh, ngëneelam ak darajaam ndax nee na eh, maa wàcc alxuraan ci guddig laylatul xadar nee na guddig laylatul xadar moo gën junni guddi moo gën junni weer te eh, ci guddi gi eh, malaaka yi dañuy wàcc ànd ak Seydina Jibril te jàmm jàmm moo ci am ba ba ba ba fajar di xar ba fajar di xar te ku nekk xam na na jàmm mooy lépp waaw sëñ Tuubaa daana wax naan gisuma lu gën jàmm fii gis ma ko lu ko gën fële kon euh, waayu guddi gi ak màggaayu weeru koor euh, ndax sëriñ Tuubaa euh, ku ne xam na ne dafa fonkoon weeru koor daf ko fonkoon woo lool moo taxoon yaa xayra day fin nga xamee ne xasida la goo xamee ne daf ko bindoon ngir di ci teeru weer wi waaye defoon geneen xase di yaadal busharaati ngir di ci tàggoo ak moom waaw nga xam ne moom yëmaluwutoon ak weeru koor ak dara dañ daan wax naan bu ñëwee mbégte mi ngi ciy bég eh, daawoon gis mu mu def ko ci mu bég ko ci yeneen jamono te itam eh, képp koo xamee ne da ngaa masa am soxla nee na da daan da da nga daan dàkk weeru koor ngir wax ko soxla si ndax lépp luñ ko wax ci weeru koor rek euh, euh, da da ci daan taxaw te loolu ci jëwri ci ci ci jëwriñam ji euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko ci la ko royee ndax nin ko waxee ni ko xadis bi waxee kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aji wada naasi wa kaana aji wada maa yakunu fi ramadan waaw Seydina Aïcha yaakaar naa moo solo xadis bi da daan wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa moo gënoon tabe ci nit ñi moo gënoon tabe ci nit ñi waaye eh, ci weeru koor la da lay yaaw waaw kon eh, weeru koor lépp loo xamee ne danan ko def ci ay jaamu yàlla bu weeru koor ñëwee dañ ko war a yokk dañ ko war a yokk te loolu yonent bi sallallahu alayhi moo ci royukaay mm-hmm. loolu taxoon Cheikhul Khadim moom it euh, weeru koor mu fonkoon ko lool mm-hmm. daan ci yokk ay jaamu yàllam euh, daan ci euh, fonk ko fonkeel goo xam ne gisuñu keneen ku ko fonke noonu ku ku neen fonko noonu yaa xayra dayfin karimin mm-hmm. ni mu ko waxee ci yaa mukrim yaa mukrim dayfi jaaran kaana aw zaara yaa maax yan an xadimin qablu aw zaara waaw soxna si moom euh, ni mu fonkoon bis bi man mën na wax ne gisuñu kenn kenn kenn ku ko mas a fonke noonu ndax ni ma ko waxee mille neuf cent quarante la ko tàmbali ci ndigalul Cheikh Mahamadul Fadal euh, togg ay berne boobu sax jamono ji dafa xawoon a naqari ba war waay yombutoon waaw wax ne Ahmad Maxtaar Mbow nga xamee ne booba euh, fonctionnaire la Daarul Mooti moo ko abal ab oto ba berne yooyu mu mu mu mu mu mu mu mu jël ko yët ko ci Cheikh Mahamadul Fadel waaw ba mu demee laaj ko ci ndigal ci la ko ci la ko joxe ndigal ci bis bi ba del ko ci ay ay del yu yu rëy ne ko fépp foo bëgg mu àgg fa rek dana fa àgg te loolu yaakaar naa ku jamonte woon te jamonante woon ak soxna si rek xam na ne bis bi moom àggan na foo xam ne ndax dem nañ ba baa soxna si rey na ko ci mm-hmm. waaw waaw rey na ci rey na ci lu ne mm-hmm. waaw euh, soxna si nag def na ko juróom fukki at mm-hmm. ndax ginnaaw bi ko tàmbalee daarul moxti def na ko daarul waxaab daarul waxaab def na ko fa ay at yu bare bare bare ndax daarul waxaab moom it dëkk la boo xamee ne euh, cheikh sidil muxtaar di cheikh awa balla moo ko sanc Euh, ci mille neuf cent soixante. mille neuf cent soixante la ko sanc ba mille neuf cent soixante neuf ci la joxe dëkk bi Cheikh Mahamadul Mahfouz. fekk booba Cheikh Mahamadul Mahfouz jóge na ca daara ja ba jàng la war a jàng. mu mu yëkkati dëkk ba teg ko ci loxoom. Euh, euh, sàkku ci soxna si nag ngir mu jàppale ko ca. ndax ku ne xam na ne doomi Sëñ Tuubaa moom lépp lu mu bëgg rek. yàlla def ko daf ko yombal te boobu fekk na dëkk ba mu laaj ay mu laaj lu bare dara am fa woon nga xam ne daanaka lu fa am rek ci barkeb soxna si euh, ci la ko amee nga ndax soxna si moo fa indi aw yoon moo fa indi euh, dispensaire poste de santé waaye moo fa indi tam ndox forage en mille neuf cent euh, mille neuf cent soixante seize ci la ci leen ci leen inauguré forage nga xamee na lépp luy am ci dëkku dëkku dëkku dëkku taax rek fi ñu am na fa ndax courant ñëw na am na yoon am na lépp soxna sa nag def na ko fa ay at def na ko fa ay at man noonu yaakaar naa bu mu juumut ay 1985 euh, ci la ko toxale Daarul Wahab andi ko Touba waaw andi ko Touba te booba euh, li ko waraloon euh, dana wax ne dafa amoon jàngoro ju amoon ca ca gox booba waaw dafa amoon jàngoro ju fa amoon euh, moo taxoon mu mu toxale fa indi ko Touba euh, dana ci ndigalu Cheikh Abdoul Ahad waaw bi mu ko bi mu ko defee ca wé déwén sa ba mu ko bëggee delloowaat Daarul Wahab euh, Cheikh Abdoul Ahad dana ko ah kuy liggéeyal Serigne Touba boo ñëw cib dëkkam waroo ko bàyyi di ko di ko defewaat feneen nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko moo moo ko jox ndigal ngir mu continuer di ko defe tuubaax ngir continuer di ko defe Touba. ah ni ko doon defe nag ni ko doon defe nag dara jiitu ci njàngum alxuraan njàngum alxuraan moo ci jiitu waaw ah, ndax eh, da ko bañoon ba eh, defaloon ko ab tool defoon ab tool boo xamee ne lépp lu ca juddeo lépp luñ ci récolté da koy def ci enveloppe di ko jox daaray kaamil yi ah, di ko jox daaray kaamil yi mm-hmm. nga xamee ne ci loxol eh, sëñ Bas mu Cheikh Mouhamadul Fadal mm-hmm. ci la ko ci la ko ci la ko ci tegoon ci la ko tegoon mm-hmm. ah, ah, nga xam ne eh, kon noonu la ko noonu la ko fonke woon noonu la ko fonke woon eh, waaye itam bu bu bis bee mu mu mu def ay ay bernde Ah, di di ci woo mbokk yëpp ah, ngir ñi ñi ànd ko ak moom ndax ah, ni mu yéene woon bopp lu baax noonu la ko yéene mbokkam yëpp yàlla dogal na itam ñoom ñëpp nag ñi ànd ko ak moom waaw ndax kër gi loolu firnde la ci ndax kër gi daf ko def ngir eh, laylatul xadar moo taxoon ma def ko ndax dem na ba kër ga ci jumaa ja xejatu fa ginnaaw bi la ko eh, Cheikh Abdoul Ahad jox jox pàkk bi ngir mu yaatal fi leelatu xadar waaw fii am na leelatu xadar goo xamee ne eh, Cheikh Saliou eh, radiallahu taala anhu moo fi ñëw ci suba gi ci ngoon gi Cheikh Mouhamadul Mourtada ñëw fi nga xam ne keroog soxna si dafa bég bégte moo xam ne ba ah bis bi day borom bis bi nangu na ko waaw ndax Euh, Cheikh Saliou ñëw na fi julee fi tisbaar wala julee fi yor-yor Cheikh Monta euh, Cheikh Mouhamad Mourtala ñëw fi euh, julee fi timis mhm. kon loolu day wane ne ndogoo fi day wane ne bis bi boromam nangu na ko waaw nga xamee ne lu ne la ci daan daj ngir di berndeel ngir ngir di berndeel mbokk yi ak mbokki taalibe yi nga xamee ne ñoo ko daan ànd ak moom mhm. dana wax ne bu bu bu bu laylatul xadr gi jàlle rek ci la daan waajale du xadr gi ñëwaat waaw waaw waaw bu laylatul xadr gi jàllee rek ci la tàmbali waajal eh, ngir fonkeel gi waaw ngir ngir waaye lim ko doon defe daal mu weesuut jàng alquran eh, ak ak ak teral mbokk yi eh, mbokki taalibe yi waaw ak di ci teral mbokki taalibe yi nga xamee ne lépp lu mu daan te lépp nag ñaq ñaq boppam moo ci daan jiitu mm-hmm. waaw ndax dafa amoon darwaab googu am am fa amoon fa ay tool waaye amoon fa daan fa sàmm itam ci ak jur mm-hmm. euh, daan fa bay waaye lépp nag daanaka mënoon wax na ci bis bi ci la ko daan def mm-hmm. waaw ci la ko daan def waaw te jublu ci dara lu dul dàq euh, ngërëm ak bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa ndax xamoon na ne Serigne Touba euh, bëgg-bëggam mooy alxuraan waaye bëgg-bëggam mooy mooy weeru koor waaye bëgg-bëggam mooy leelatul xadar jërëjëf euh, Balla ci li ñu leeral ci soxna May Muna bintu Xaadim Rasul ak ni mu doon dundalee leeratul xadar ba nga xam ni egg na ci di ko fàggul ay tool yoo xam ni su pare lu ca ñore du jëm fenn du jëm ci njabootam du jëm ci kenn ku may ci daara alxuraanul karim yi yi nga xamante ni ñooy jàng alxuraan ci euh, laytu xadar gi ci wàccaay wi kon yaakaar naa loolu cofeel ak mbëggeel ak taxawaay mënta weesu lu kawe loolu waaye tam wax nga ni alali boppam moom la ci daan jiital waaye tam nargan ci ak njabootam euh, kenn di mu des waaye tam wax nga ni bindee biñ demee ba euh, feebar xew foofu ci Daaru Wahab la ko indi fii ci Touba ginnaaw bu mu ko bëggee delloo itam ndigal moo ko dëlaat fii ci Touba mu di ndigal sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon yaakaar naa lépp euh, ndigal sëriñ Fallou ko sosoon ndigalal sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko feddali kon oustaz euh, sëñ Mouhamed euh, ñu jox la kàddu yaakaar naa dégg nga Baye Cheikh li nga xamante ni wax na ko ci sos gi lenn ci soxna May taxawaayam ba ci ni nga xam ne noonu la ko doon dundalee ak pas-pas bi mu ci amoon ak doog gi ak bëgg gu yaatu gi waaye tam nag ni nga xamante ni noonu la ci taxee woon tey ba euh, ñëpp gis ni su nee laylatul xadar daa far lëkkaloog turu soxna may muy soxna may mu mun a borom laylatul xadar ci yaakaar naa ni magu fi te tam am na ñu mag ca teewul nag su nee soxna may borom laylatul xadar la ñuy wax lan nga ñuy leeral ci euh, li Baye Cheikh doon indi léegi jërëjëf sëñ bi xanaa ñu santaat yàlla rek jul sa sallam jul bu baax waaye di sant suñu maam ji soxna Maymatu bintul Xadim di ñaan suñu borom yokk ay leeram te yéegalu ci àjjana yu kawe ya te fay ku liggéeyam ci laylatul xadri eh, wane la ko waajuram bu tedd wa waaye macha allah sëñ Baye Cheikh li ñu doon eh, xaar ci moom lépp mën nañ ni am nañ ko waaye am nañ ci sax lu suñ jort ndax ku dégg nim leerale bis bi ak cosaanul bis bi tàmbalee ko ci xilaaf ak Cheikh Mamadou Fadil Euh, soxna si toggee ñaari ginaar ca Daarul Moxti booba war waay jafe lool mm-hmm. waaye ku ñuy wax Ahmadou Maxtaar Mbaw mu nekkoon benn euh, fonctionnaire nekkoon ku ñu xam ci réew mi moom la abbu oto ba loolu lépp ci passé wu soxna si indi ko Touba ci kër Cheikh Mawul Fadil jox ko sëñ bi ñaanal ko ni ko incha allahu taala di nga dem ba mu doon giléem waaye yaakaar naa tey ku ñëw fii ci Laylatul Qadri xam ni dem na ba doon ay giléem waaye doon na ay baa waaye doon na ne kenn mënu koo lim ci ak jur goo xam ni euh, dañ ko fi defar te lépp jëm ci ay bernde waaye jëm ci bokki taalibe waaye jëm ci bokki deret yi mm-hmm. Euh, loola ci soxna si daan def nag mën nañ ni ba léegi nii dafa yokk ndax Cheikh Mouhamadul Mahfouz ku ne xam na ni bende yi sax xëy na booba ak soxna si def xëy na Touba li ko wër la daan doon ak njaareem mhm. waaye léegi Cheikh Mouhamadul Mahfouz yokku na ko ba nga xam ni am na camion yoo xam dañuy jël fii ay bende di ko yóbbu fii ba Saloum mhm. loolu yaakaar naa ni euh, ñiy euh, jege bis bi yëpp xam nañ loolu waaye niki noonu bu bis bi ñëwee lay génn lu bari ci ci ci ci alali boppam def ko ci ay ay enveloppe ay millions yu baree baree bari yoo xam ne sëñ Baye Cheikh mi loolu leer na ko ñu koy jëmale ci daaray kaamil yi nga xam ne ñooy jàng alxuraan ji mhm. kon yaakaar naa ni sëñ Mouhamadou Mahfouz moom it fépp foo xam ne soxna si bàyyi woon na fi bis bi rek moom it yokk na ko tey yokkin woo xam ni mhm. ku fi ñëw rek di nga ci teg bët mhm. niki noonu la ko ànde woon ak magam ja soxna Bali yàlla na ko yàlla yéegal ci àjjana yu kawe ya waaye Cheikh Amadou Mahfouz ku ne xam ne tamit dafa jaxasoo mboolem këri diine yi ndax ko xam Serigne Touba xam ni moom l'islam rek moom moo ko ñoroon waaye l'islam yëpp la jaboote woon l'islam yëpp la jabootoon loolu nag sëñ Modou di ko doxe ba tax na tey boo ñëwee Laylatul Qadr mboolem këri diine yi ci réew mi euh, kër gu ci nekk dina am délégation boo xam dañ fay jóge ñëw fii mm-hmm. waaye ñi nga xam tam ñoom la yàlla teg àdduna ci seen loxo tamit ñoom kazalika boo ñëwee ci cérémonie officielle bi ñoom ñëpp da leen fiy fekk loolu nag day wane sëñ Mouhamadou Mahfouz nit ku universel la waaye nit ku am maslaa la ak ñëpp waaye a la woon waaye diine euh, diine waaye li ñu dégg ci sëñ daal bu ñu ko taatanee te déglu ko dinañ gis ni wax dëgg yàlla lépp loo xam ne amoon na solo ci bis bi ci cosaan li ci ni ko soxna si daan dundale ci ni mu ko joxe woon yitte ak ni ko fonke woon wax dëgg yàlla mën nañ ni sëñ Baye Cheikh ci loo xam ne doy na sëkk ab yóbbal kon xanaa ñu ngi leen di santaat yéen rek di leen gërë gërëmaat di ñaan suñu borom yóbbuñ ci bis ba euh, euh, defee ko nu raw ni ñu ko daan defee te yàlla defal ci sëriñ bi ndam lu raw lam am ci barke weeru koor gi ci barke sëriñ Touba di leen wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jaajëfal sëñ Baye Cheikh baax a baax di ñaan suñu borom yokk xam Euh, ba lépp loo xam ne waajuram bëgg na ko ci moom ci ay taxawaay rek mu man mu man koo defe nu nu nu kowe njort ci barke Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum. jërëjëf kàddu yi am na solo leeral itam am na solo ñu ngi lay sant bu baax ci euh, taxawaay bi mu mel ni kon Baye Cheikh fi ñuy daaneel rek kàddu yi di fi tëje mooy euh, lenn ci soxna May muy diplomatie soxna May ak fa soxna May fekkoon jamono ak itam fa mu toll woon jamono. ak jaxasoo gi nga xam ne jaxasoo na ko ñooñ jamono ba doon leen soppi ci doxalin ci melokaan ci lépp nga xamante ni moom daa mel da jiitu woon jamono bi mu nekkoon soxna may kon dañoo waroon wax ne su fekkoon ni jamonoy tay la yaakaar naa ni dana am taxawaay bu am solo boo xam ni dana ko am ci réew mi dana ko am ci ñooñ politique ñi waaye itam dañu ko am ci ñun diine ndax na ko yàlla jaxasoo woon ak ñëpp ni mu ko waxee ci mën a maslaam ak doomu aadama yëpp waaye tam ginnaawam olof yi dañuy wax ne ku yokkul da ngaa wàññi olof yi wax ni itam baax am na solo waaye bokk na ci li gën a baax nga baax ba pare dem bàyyi ñu baax sa gannaaw su dee naal woon naaloon daañu ko àggale su dee njëmbata daañu ko suuxat su dee euh, taxawaaye daanu ko matale su sampa itam ko rokkas ba samp ba dëgër yaa soo déggee ni ma dégg nga waxee dégg ni euh, euh, sëñ Mouhamed waxee day mel ni kon sëñ Modou Mahfous ak soxna Baleeg ngiñ fi bàyyi samp soxna may wa rokkas nañ ko naal wa eggale nañ ko ba naalaat yeen yoo xamante ni bii ginnaaw soxna may la waaye itam nag mel na ni njëmbale itam suuxat nañ ko ak itam programme bës bi ni muy déroulé incha allah rabbi ba keroog euh, euh, leetu xadar gi nga tënkal ñu loolu Baye Cheikh. Ah, ah, jërëjëf sëñ Moussa oh, laaj nga laaj bu am solo ah, soxna sa yàlla da ko baaxe woon ginnaaw bi mu nekkee borom xam-xam mu amoon jikko ju rafet jikko joo xamee ne moo taxoon mu mën a jaxasoog ñëpp waaw moo taxoon mu mën a jaxasoog ñëpp ndax. ni ko sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxe ne la la lan eh, tasaal naasa bi bi bi bi yumkin an eh, tasaaw bi eh, axlaaqikum nee na nit ñi mënoo leen a daj ci sa alal waaye mën nga leen a daj ci sa jikko ju rafet ah, soxna si nag yàlla da ko ba taxoon moo mën a jaxasoog ñëpp mm-hmm. ah, rawatina nag ah, ay mbokkam mm-hmm. waaye rawatina ah, mbokki taalibe yi mm-hmm. waaye même mm, niti àdduna yi sax dafa leen dafa dafa mënoon a jaxasoog moom dafa mënoon a jaxasoo ak ñoom waaw ndax ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko boole woon ak moo ko boole woon ak Senghor ndax booba Senghor da doon sàkku réew mi mu ñëwee Cheikh Mouhamadul Fadal euh, mu ne ko na nga dem ca soxna may munatu Mbàkke mu ñaanal la mm-hmm. waaw nga euh, wax ko ne ko fexe ba ba mu wax leen euh, danga nga jot ci réew mi ndax moom mooy mooy mooy man maay bunt bi waaye moom moo mujj ci kër gi mm-hmm. waaw nga xamee ne bi mu ñëwee ci soxna si ci ko soxna si ñaaral ne ba yàlla dogal ñaan nga nangu mm-hmm. wax nañ na sax bi ñaan nga nangoo euh, Seex Cheikh Mahamadul Faadal euh, daf ko wax ne ko noo def ak euh, kama yebaloon baa weexal na la ginnaaw ba ñaan nga nangoo ah sonn si na ko ah, oh, oh, ñaanal naa ko de ah, nga xamee ne Cheikh Mahamadul Faadal dafa woo Senghor Senghor na ko nag ah kon de xanaa na ñëw na ñëw dama bëgg mu ñëw ci pale bi sax ñaanal ma fi waaw waaye nga xamee ne euh, soxna si euh, Senghor da ko recevoir palais waaye ba mu demee lam sàkku ca moom mooy euh, am ndox mu mu indi daarul waxaab waaw nga xam ne moom daawut sàkku ci ñoom moom lu dul loo xam ne dana jariñ askan wi waaw waaye daawu ko diis soxlay boppam waaw daawu ko diis soxla si boppam waaye soxla soo xam ne day delloo day delluwaat ci askan wi nga xam ne forage boobu ñu ngi ko def ci 1976 moo juumut waaw ci leen ko inauguré waaw waaw kon moom dafa nekkoon jaxasoo na ñëpp waaye rawatina nag mbokkam yi noon noonu la jaxasoo nag sëñ Fàllu noonu la jaxasoo nag sëñ Fàllu ndax dañuy nettali ne Cheikh Mouhamadul Fadal euh, mas naa ñëw euh, Kajoor am gan gu mu fa doon def bi mu ñëwee bi muy wàññeeku mu jaar daarul manaan eh, nuyoog Cheikh Cheikh Sidil Muxtaar Cheikh Awa Balla daal di wàññeekuwaat ñëw Touba nee na ba ko soxna si yéegee fekk boobu soxna si mi ngi woon daarul manaan daf daal yónnee ci sëñ Fallou daan ah man de musuma gis eh, ku ñëw cib dëkk fekk fa doomi sëriñam mu teggi ko jaaru fa <laughs> nga xam ne ba ndaw la ba ndaw la eh, waxee loolu sëñ Fallou dana ko muñal ma rek muñel ma fanaan ba suba nee na ci ëllëg sa sëñ Fallou taal otoom wàññeekuwaat ñëw daarul ma naan nga xam ne daan na ko nag eh, tey nag soxna si moom mu andi <laughs> nga nga xam ne lam ko wax sax dana ko ah seetal rek seetal rek mag mu toll nii eh, xale bu toll nii yëg di ko yëkkati <laughs> waaye gis nga nga xam ne nga xam ne loolu la seen relation ku ci nekk Serigne Touba rek nga daan xool ci sa morom waaw nga xam ne mm, sëñ Fallou da ko fonkoon lool lool lool lool. waaw fonkoon ko lool noonu la meloon nag sëñ Abdul yitam itam sëñ Abdul Ahad itam eh, dafa àndoon ak moom eh, xilaafa gi eh, nekkoon ci wetam di ko xelal di ko jàppale waaw di ko di ko di ko di ko jàppale waaw ñun ñun ñi nga xamee ne ci kër gi lañ yaroo waxtu wu nekk Cheikh Abdou Ahad ñëw na fa waxtu wu nekk Cheikh Abdou Ahad ñëw na fa ñëw na ci kër gi ci Touba ak Daarul Wahab waxtu wu nekk dafa daan ñëw waaw ah, léegi sax léeg-léeg sax da daan ñëw ñi ànd ci oto bi ndax Cheikh Abdoul Ahad dafa bokkoon ci aadaam ngoon gu jot day génn di wër dëkk bi daan dem ba njaareem sax ci oto bi daal di wàññeekuwaat waaye lu ci bari day ah soxna si moo ko daan wéttali ci ci loolu waaw soxna si moo ko daan wéttali ci loolu bari na yoo xamee ne sax ay ay ay projet la yoo xamee ne Cheikh Abdoul Ahad daf ko taxawoon taxawaloon am na yoo am na yoo xam ne nee na xalaat bi ci soxna may la jóge waaw waaw xalaat bi ci soxna may soxna may la jóge am na yoo xam ne nekkut waxi waxi rajo waaye seen relation daal moom euh, sori woon na sori woon na noonu la deme woon ak Cheikh Saliou waaye noonu la demee woon ak njabootu Sëñ Tuubaa gépp waaw Cheikh Mahamadul Murtada Cheikh Abdul Qadir Cheikh Chouaïbou njabootu Sëñ Tuubaa gépp daal Euh, noon noonu noonu noonu la amoon ñoom ay relation mm-hmm. waaw waaye itam mbokki taalibe yi itam noonu la leen euh, noonu la leen fonke woon mm-hmm. waaw noonu la leen fonkam teraangaam euh, fu nekk la daan dem teraangaam fu la daan dem waaw autorité itam lim jaxasoo ak jaxasoo ñoom mm-hmm. teewutoon mu mu mu mu mu mu sàmm mu sàmm cosaanam sàmm diineem waaw sàmm cosaanam sàmm diineem waaw te eh, daawut sàkku ci ñoom lu dul njariñul askan wi waaw njariñul askan wi rek la daan sàkku ci ñoom waaw kon yàlla def koo defoon daal eh, mu nekkoon koo xamee ne eh, jikkoom ju rafet taxoon na mu mën a jaxasoo ku ne mu ngoog bëgg sëñ Tuubaa itam moom it jéggi na day wa waaw bëgg sëñ itam jéggi na day wa daana wax naan mm, sëñ moom foo ko teg rek Eh, nit ñi teg la fa te duñ ko sañ a bañ waaw daana wax loolu bokk na ci nee foo teg sëñ rek nit ñi dana la fa teg te ko sañ a bañ waaw waaw yàlla lañ ci xiir moom moom ni mu ni mu fonkoon sëñ moom ëpp na waaw moo taxoon même barab ba ajuma ju jët eh, dafa daan dem waaw bari na daan fa andi ay ay ay ay sikke ki ay parfum lu nekk la fa la fa daan def waaw ñi ñi daare kaamil yi itam mën nañu wax ne moo leen yore woon mm-hmm. waaw daare kaamil yi ci jumaa ji daanaka moo leen warlu loon ab ab dund ab añ waaw mm-hmm. waaw daan liggéey ci jumaa ji itam ni nga ko waxee moom moom it moo leen daan moo leen daan toggal daan leen jox ay berne waaw daan leen jox ay berne waaw dafa dafa nekkoon koo xamee ne ab jàngalekat la woon nekk ab ab yarakat mm-hmm. waaw ba tax na jabootu sëñ Tuubaa gépp Euh, ñoo ko tuddee ay doom ba pare jébal jox ko ko hmm. ak taalibe yi itam waaw ba tax na euh, wax dëgg yàlla bari ñu fa yaroo ñoo xamee ne ban fa ay ay ay royukaay lan ci seen kër yéen nekk waaw kon daal moom mooy ki nga xamee ne euh, yàlla rek moo ko mën a fay ndax dundam gépp daf ko daf ko jeexaloon ci liggéeyal Serigne Touba hmm. waaw ko jeexaloon ci liggéeyal Serigne Touba ndax l'islam moom Euh, ràññeewu euh, moom amut amut euh, defut separation góor ak jigéen waaw dana man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fa la nuxyiyannoo xayaatan tayiba nee na képp koo xamee ne dafay jëf-jëf yu rafet ba pare ànd gëm yàlla moo xam góor nga wala jigéen nga danaa ko may dund gu tey ci àdduna te bu ñëwee yomal xiyaam ma fay ko lu gën a kawe lam doon def soxna may nag loolu loolu la xamoon moo taxoon mënoon wax ne dafa taxaw taxawaay góor mm-hmm. waaw ndax bés bu toll nii mm-hmm. nga nga taxawal ko waa am ci am ci am ci xaas gi mm-hmm. loolu yombut kon yàlla na ko yàlla fayal lislaam yàlla na yàlla fayal yoonu murit waaw fayal euh, liggéeyam bépp rek yàlla ko yàlla nangu te lépp loo xamee ne def nañ ko ci ay ci bis bi suñ borom nangu lépp te jotale ko tiyaaba ja ak yiw ja te bis bi ñu dëgmal suñu borom àggalañ ci ak jàmm te def ko ni nga xamee ne noonu la ko bëggee woon waaw te lépp lu luñ ci def rek mu nekk nekk addiya Sëriñ Tuubaa waaw programme bi nag ni nga ko waxee rek moom incha allah la 4 lay doon le 4 avril dëppoo euh, guddig ñaar fan ak juróom ci weer wi euh, di alxames waaw di guddig ajuma waaw moo nga xamee ne leelu xadar moom euh, takk bi nga xamee ne moom lañ ci def te xañ na sax mën naa am ci sëñ bi ndax jiitu na sëñ bi waaye sëñ bi def na ci eh, def na ci na ci ay ay abyaat kon day wane na eh, day wane ne war maal na wala wala ànd na ci takk boobu waaw nga xam ne toujours eh, ci ci fukki fan juróom yu mujj yi lay doon ci ci weeru koor ba pare nekk lu tool ba pare nekk guddik àjjuma loolu mooy takk bi ci fukki fan juróom yi lay doon nekk guddik ajjuma ba pare nekk lu tool ci ci ci ci ci bis yi waaw kon ren daal mi ngi nekk le 4 avril incha allah dëppook ñaar fan guddik ñaar fan juróom ci koor gi waaw nañ koy defee moom noonu lañ ko baaxoo defee rek la ci jiitu mooy eh, daaray kaamel yi ba weer wi teroo eh, ci la Cheikh Mouhamadul Mahfouz eh, ànd ak njaboot gi ni ko soxna si baaxoo defee mu def ko ni muy daara kaamal ju nekk ñu yëkkati ab lim waaw yóbbu leen ko waaw te bu bis bu ñëwee itam dañ leen defal ay berne eh, fépp foo xamee ne eh, joxewoon nañ leen ay barkeelu dañ fa yóbbu ay berne nga xam ne ñoom moom bu weeru teroo rek la ñuy tàmbali njàng mi eh, waaw bu bis ba ñëwee itam ñu dajaloo ci kër gi ak ci kër gi ci tuubaa ngir di berneel gan yi ak di jokk mbokk gi ak di leen defal ay teraanga ak di ci wàcc alxuraan waaw ba ba ba ci guddi gi ci la defe defee cérémonie religieuse nga xamee ne ci ay 22 heures incha allah moom lañ ko bëgg moom lañ ko bëgg a def bu wéyee itam ñu dundal guddi gi ci njàngum alxuraan ak njàngum xasida ndax guddi gi moo am solo mooy mooy guddi gi Laylatul Qadr waaw guddi gi Laylatul Qadr ni nga xamee ne noonu la ko euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam santaane woon waaw wax na ne. bokk na ci lam daan wax inna allaha yuhibbu dama teewluut dama teewluut waaye waaye waaye ni mu ko waxee daal da daan dundal ci tudd ci ci tudd yàlla waaw ci tudd yàlla ak ci ay ñaan ak ci ay ñaan waaw kon ñu ni noonu leen koy dundale incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm rek te lépp luñ ci def ci ay ci ay jaamu yàlla suñ borom nangu ko te jotul la ko Sayyidatuna euh, Soxna Maymuna te ñi nga xamee ne ñoom la fi bàyyi itam suñ borom yàggal leen fi di Cheikh Mahmoud Mahfouz ak njaboot yëpp rek euh, ci barke Serigne Touba di ziyaare mbokk yëpp di leen ndokkeel di ñaan suñ borom àggalañ ci ak jàmm rek asalaamaaleykum wa jërëjëf euh, Baye Cheikh Awa Balla ibnu Cheikh Mahmadul Mahfouz ci waxtaanu am solo yi nga xam ni indil nga ko ci sa maam soxna a Mbàkke waaye indil nga ko itam ci guddi gu todd tedd gi nga xam ni moom la ñu dëgmal mu di laylatul xadar ak solo si nga xam ni am na ko ak li ci làmb li ci aju lépp waaye itam indil ñu ko ci dund ak jaar-jaari soxna a Mbàkke lenn ci li nga xamante ni xaj na ci jotaay bi kon ñi ngi lay sant bu baax waaye itam lenn ci taxawaay bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadil Mahfous amee na ko waaye itam ànd kook mbooleem njaboot gépp kon yaakaar naa ni itam sëñ Mahfous ñi ngi ñaan yàlla guddal fanam yokk wéram ba nga xam ni li ko soxna si batale ni mu ko yëkkatee mu kawe mu gën a kawe ca bañ laa suuf benn yoon ci am nañ ci njortu rafet am nañ ci yaakaar itam ndax la koy maye muy yitte ju kawe mu ngi ci Cheikh Mouhamadul Mahfous la koy maye mooy dëddu àdduna dëgmal li nga xamante mooy liggéeyub Serigne Touba bi mi ngi ci Cheikh Mouhamadul Mahfous kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla kàttanal ko gën koo dëgëral yow itam Baye Cheikh ñu lay ñaanal yàlla euh, dolli la tawféex euh, boole la ak sa wayjur euh, ngeen yàgg lool ànd ak wér ak mbooleem ñi nga xam ñu ngi doon bàyyi xel ci biir réew mi ak réew moo xam ci rajo bi moo xam ci télévision bi fu ci nekk rek ñu ngi ñaan yàlla dool leen tawféex baax a baax kon mbokk yi Laylatul Qadr a ngi noonu soxna Maymuna Mbàkke bintu Xaadim Rasul ñu ngi koy amali fii ci HLM ci kër Laylatul Qadr gi ak fële nga xamante ne mooy kër soxna May ga ca Jumaay Touba lépp nag njaboot gi di ko taxaw waaye itam jàng alxuraan jàng xasida istixfaar salaatu ala nabi bépp xeetu jaamu yàlla goo xamante ni dañ koy def ci bës rek dañ koy gën a dolli ci bésu leetu xadar bi noonu la ko sëñ Mahfouz santaane waaye itam nag euh, su nee ba ca guddi ñu def cérémonie religieuse bu nga xamante ni dañuy waxtaanee mbokk waxtaanee soxna may waaye itam waxtaanee guddi leetu xadar gi incha allahu rabbi njaboot ak seexul xadim gépp niñ ko daan defee teewe ko njaboot ak islam gépp teewe ko ñi nga xamante ni ñooy taal yi itam teewe ko fii ci kër gu Laylatul Qadr gi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp waaxiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wastaghfir li wa lakum wa li jamil muslimin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu